woon ci gouvernement Abdou Diouf am na ay situation moment yoo xam ne Abdou Diouf wax na ko mu ñëw bu élection jotee dafa jënd dem def élection am. def na ko deux fois et fois bu muy dem may ànd ak moom. dans son cabinet. sa maître tam def na benn sortie hmm? di wax ne nañ ko bàyyi. ñi pardon sa maître Abdoulaye Wade. Ah. génn tamit ne nañ ko bàyyi dem nañ dem bàyyi ko ni ñu koy tudd. ñun demuñu dañu dàq yéen euh, ak euh, ak. ma ne ñun hmm. mu ñu dàq. Mhm. jot ngeen communiqué bi. Mhm. kon ñun demuñu ñun dañu ñu dax secrétaire national ki ma nga fa woon ñoo réunir waaw xëy na ne ko fa woon ñoo réunir ne on nous a renvoyé à partir de ce jour pour indiscipline ah bu ñu la renvoyé nooy def ñun bàyyiwuñu ko la preuve année ñun on est vadis moo nekk suñu xol te ñun xam nañ ne ndax son cœur am nañ fa place. mais dafa am ñu mel nii ñoom Doudou Wade ak ñoom Oumar Sarr ñooñu ñooñu jaxase ak Ablaye Wade bi situation bi am nañu waxante dëgg. waaw dama bëgg pour. voilà nga bañ a personnaliser. non non non kii moom ma wax. waaw damay wax la vérité. man man nga ma bañ a. yéen mii yéen ñu booleeg Ablaye Wade. te gën leen ñu bëgg Ablaye Wade. ay mbokkam ngeen mais bëggu leen ko. waaw fais attention. mu nekk yëpp yéen ko ko teg. yaa yaa ngi yaa ngi. yaa je je prends à témoin les Sénégalais. qu'il y a des dérapages et le risque. Il n'y a on va recentrer. Si bon, ça risque très loin. surtout que ne dama jege. excusez-moi a pas de frontière entre vous. voilà voilà voilà président on va on euh, s'il vous plaît on va aller à l'essentiel. Euh, président ñu recentré. Ah, tu es voilà donc c'est bien ma c'est maintenant dama bëgg wax ne dama ay bañ a ñu créer équivoque très rapidement. ok allez-y. xam nga Abdoulaye c'est notre maître. ku nekk am na droit wax ko te moom bu ko waxee am na droit wax ko mais c'est comprendre le maître le maître n'est pas allé dire boo ma wooyee mu ñëw dafa xaar ñu woo ko mu ñëw mooy différence bi je tourne cette page. dañ ma posé question. ah déedéet man je répondais une question. je que bu ñu la wooyee di nga dem ma ne bu ñu ma wooyee dinaa dem. Pape Samba leer na. bu ñu ma ko euh, koy bàyyi mu continuer maintenant. tu as conclu parce que moi je suis pas euh, vous plaît. Pape ta ta main a une frontière bu mu bu mu passé fii. passé naa ko. non président s'il vous plaît non s'il vous plaît Pape Samba léegi bàyyi président mu mu mu mu